am ndigal nun ñëpp ñu ñaan ci barki koor gi moom Ablaay yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla itam di ferekante ak moom yéen itam yal yàlla jàppale leen yow Umar gis nañ sa taxawaay yàlla moo am pay yal na la yàlla fay yow ak ñi nga àndal yëpp barakallahu tey ñi ngi fii ci jàmm gën ñun waa mouvement religieux pour l'émergence fa tabarakallahu ci kër imam Abdul Xaadir lii di imaamu ratibu tabarakallahu jàmm gën waaye ànd ak ki nga xamante ni moo di sunu président fa tabarakallahu di al imam Omar Dem fa tabarakallahu tey ñu ñëw fekk si suñu kilifa gu baax gii di imaam Abdul Xaadir lii di ko ñaanal sunu boroom yal na yàlla gën koo sàmm yal na yàlla gën a guddal fanam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu nag tey bu ñu gisee lii xam ni lëf la mooy li ko waral mooy fa tabarakallahu président Abdoulaye Dieye di directeur AIBD jël leen ni ci ay teranga fa tabarakallahu mu ceeb dëwlin suukar tàndarma fa tabarakallahu ni lii kat yéen mouvement bi maa leen ko jàppale ci weer wi nga xamante ne bi mooy shahru ramadan al mubarak fa tabarakallahu te ñu nag ku ñu xam xam ñoog moom ku ñu xam xam ni ba ñuy ànd ak moom démb la booba yii yépp xewagul fa tabarakallahu bu ñu demee tey ba yàlla dénk ko président Macky Sall jël li nga xam ne mooy directeur aéroport de AIBD teg ko ci loxoom muy dem bay def social yi xalaat ñu ci fa tabarakallahu kon du ñu def lu dul Abdoulaye Dieye ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal suñu borom yal na yàlla gën laa sàmm yàlla guddal saw fan wéral say cër fa tabarakallahu ndax lii la ku ànd ak nit jamonoy naaj ba ker ñëw bàyyi ko xel ku ànd ak nit ba jamono jamonoy naaj ba kër ñëw faaw nga bàyyi ko xel te loolu alquran digal nañu ko taawanu na ngeen dimbalante alal birri ci mbaax wa taqwa ak ragal yàlla fa tabaarakallaahu lii nga ñu jëfal day ñun waa ma bi yëpp ñu ngi la ciy sant ñu ngi la ciy gërëm li ngi lay ñaanal suñu boroom yal na yàlla gën laa sàmm bu la neexoon nga bañ koo def waaye jëf jëf ji nga ko def wan nga ni ñu kat yéen ci mën ngeen bokk fa tabaarakallaahu Cheikh Omar Dem mi ngi sant imam Abdou Khadir li mi nga xamante ne bii mooy imaamu raati bu jàmm fa tubaarakallaahu di cenn di kilifa gu mag ci digg dëkk bii mu ngi lay sant mu ngi lay gërëm mu ngi lay ñaanal yàlla ak mboolem ñi nga xamante ni bii fa tubaarakallaahu ànd nañu ko ci mouvement bi waaye ànd nañ ko tey ci kër imam ñun dañu yor mouvement boo xam ne religieux pour l' yàgg na ci boobu ba léegi nag ñun Ablaye seetaane ñu ci élection yi moom lañu ñu àndaloon jàppale ko ndax ñun dañoo ragalu péete te man sama diggante ak Ablaye ñëpp xam nañ ko waaw man Ablaye moom sama diggante moom ñëpp xam nañ ko bi élection yi taxawee moom laa àndal dem ànd ak képp koo xam ne sama nit la dañoo ànd dem jàppale ko mu xalaat na nekk weeru koor muy jàppale ay jullit mu boole ñu ci lu olof di wax nag daanu daanu dajul suuf du ñëpp dañuy ko mouvement bi yaatu na yaatu boo xam ne fépp la ne ñu am lu ñu joxoon ci ndimbal rek ñu nar ko baaxe ay jullit ñëw ci kër imaam Abdou Khadir lii ñëw ci kër imaam Abdou Khadir lii di ko fi joxe loolu rek mooy suñuy tànk mooy ñi ci bari ñi ay sëriñu daara lañu ay sëriñu daara lañu ay taalibi alxuraan lañu waaw ñu fi toog ñëpp loolu la waa kër maamam yi bokk nañ ci mu sëriñ Ibrahima Ndiaye Dabbaay ak ak sëñ Ousmane Ndiaye Dabbaay ndax kenn mënul tudd kër ñooy moo moo Ndiaye bi Dabbaay bàyyi Ablaye Dieye ginnaaw ndax ndeyam bi ko meññ foofu la jógee man nag li ma xam ci waa kër Ablaye Dieye dama koy seede wa maa shahidnaa illaa maa alimnaa Baye jurul doom buy tëdd ba cinq heures ci lal diine rek lañ ñoom Ablaye magama gi magama gi magama gi ne Khalifa Dieye ñëpp xam nañ ko ku jeex ci yàlla la waaw man du seede ci nit lu ma xamul te Ablaye muy nit ku baax ah ñu daje rek ngeen gën ko ñaanal yàlla defal ko jàmm di ñaanal aussi coordinateur bi mooy Kie Yacine ak Massaer ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci mouvement bi ñëpp bawuñu kenn teraanga yi nga xam ni andi ngeen ko tey fii ci kër imaam imaam doon koo xam ni ah ni ko Omar waxe nituk diine la di imaamu raatib sunu borom mi dimbalit nag dimbali ko muy ku baax ku maandu ku tegu rek nag ci sariha eh, bu ko defee rek ñu xam ni doomu aadama bu mu mën a doon bu doomu aadama jëlee ay teraanga indi ko ci yow war ngaa santanteek ñoom war ngaa gërëmante ak ñoom bu ko defee rek ñu ngi sant Ablaay bu baax ñu ngi koy ñaanal yàlla ndax teraanga la teraanga ji mu ko defal ah yàlla miy fay yal na yàlla fay ko yal na yàlla yokk fanam a ah, grade yi mu yor itam nag yàlla mooy sàmm di aar na yàlla sàmm ko aar ko suturaal ko ba social yi muy def mu gën a yokk lool gën a mat lool gën a barkeel lool ndax ni ma ko waxee nii rek ndax moom itam xëy na yëmul ci kër imaam def na ko ci imaam yu bari waaye nag ni ma leen ko waxee rek ci réew mi moo tax li nuy wax ah ñu fas yéene rek gàttal ko foofu